أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ba tey ñoo ngi toll ci histoire Yuusuf alayhi salaam suñu dars tey mooy wa zaharat baraatu Yuusuf alayhi salaam mooy xam ngeen ne Yuusuf tolloon na ci ay nattu ci ay jafe-jafe ak ay tar-tar ba ñu jële ko ci pale bi daal di koy denc ci kaso bi sunu borom subhanahu wa taala moo dogal mu nekk fa ndax mission bu mu doon dox doon ko liggéey ba jamono ñëw tey Yuusuf war a set war a génn ci kaso bi sunu borom subhanahu wa taala di ko fa génne mu ne bi nga xamante ne waa ji doon naanal buur bi yor mbirum naanam génn na ci kaso bi daal di dellu ba li xew-xew gént buur bi ba waa ji ñu mu fàttee ba mu dellu si waat tey ci Yuusuf laaj ko Yuusuf leeralal ko waa ji daal nay dem daal di nettali buur bi la ko Yuusuf nettali ci jamono yooyu duhisal malik dahshatan sadid buur bi daal di gëlëm gëlëm gu méttee métti ci waa ji nga xam ne dañ koo tëj ma haza sijin mu ne waaw kii ñu tëj fii kan la kii nga xam ne daf ñuy liggéeyal te yaakaarul ci ñun fay maanaam buur bi dafa waaru ci mbiru Yuusuf parce que buur bi xam ne li ko wér lépp ci biir ak ci biti ñëpp intérêt moo leen fi teg Yuusuf moom dañoo ñëw laaj ko du buur bi sax moo ko woolu laaj ko mais benn waay bu ñu tëjoon ci kaso bi moo bàyyee ko ci kaso bi ñëw kër buur jógewaat kër buur dem ci kaso bi leeg wax Yuusuf rek Yuusuf daal di koy firil waa ji rapidement mu daal di ñëwaat daal di informer buur bi mu ne waaw mi waa ji moom mooy kan kii nga xam ne day liggéeyal xeet wi sans laaj dara amul lenn kii mooy kan ah kii ban relation la am ak ñun ba muy leeral lii duna an yantazir ajaran aw jazaan leeralal ñu firi ji te laaju ci fay yaakaaru ci dara benn ndomba tànk innahu nawun min albashar lam yaarifuhu almalik wa lam yaraahu abadan fi hayatihi mu ne kii ban façon wu nit la boo xam ne kii kan la kii buur bi musu ko gis ku mel nii bi mu dundee ba fi mu toog moom buur bi musul gis lii inna kullu naas yuamilunahu li maslaha faqat mu ne ñëpp ñi ko wër ci environnement bi muy liggéey ak moom ñëpp seen intérêt rek waaye kii moom tey mu ngi ñëw di liggéeyal xeet wi sans laaj fay sans laaj ndomba tànk ci jamono yooyu wa qaala al malik ituuni bihi indil leen ma ko asdar al malik amrahu bi ixraaji yusuf alayhi salaam min as-sijini wa ixbaarihi fawran ilayhi mu ne buur bi daal nay joxe ndigal ci tàng-tàng bi léegi indil leen ma waaj génne leen ko ci kaso bi nee na gaa yi daal di takk gawar yi ñu joxe alerte escorte bi daal di départ ñu dem jëli Yuusuf génne ji ko ci biir kaso bi waa ji doon nettali xabaar bi nee na xawma ki doon jox buur bi mu naan la wala buur bi dafa jël beneen waay bu gën a kawe ci xeet bi ci biir nguur gi ne dem leen ngeen indil ma Yuusuf ku mu ci mën a doon daal ci ñoom ñaar ñooñu bu fekkee waa ji moo delluwaat jëli Yuusuf bu fekkee buur bi dafa jël ku ko gën a kawe ci autorité yi ne ko demal nga indil ma waa ji ñaar yëpp am na benn bu ci am mun nañu daal di dem ci kaso ba ñu fekk fa Yuusuf ñu ne ko buur bi dee na nga ñëw xoolal ku ñu tëj kaso ci tooñ tumarankel la xiifal la maral la tilimal la dóor la tey buur bi joxe ndigal ñëwal lan la yusuf def rafada dafa lànk rafada yusuf an yaxruja min as-sijn illa ida thabatat baraatuhu awalan mu ne déedéet du ma génne noonu li ma fi dugaloon génnewuma foog ngeen leeral lan moo taxoon ngeen tëj ma ci kaso bi foog ngeen leeral ko parce que buur yi souvent kilifa yi dañuy jël nit tëj ci kaso jékki-jékki ñu ne génne lañ ko su ko defee ngay romb nit ñi ñu naan ah kii de dañ koo tëjoon te dafoo dara ñu yàq sa der yàq sa liggéey yàq sa famille moo tax Yusuf bi ñu ko nee génnal mu lànk du ma génn foog ñu leeral lan laa defoon ba mu dugg fii te gis ngeen buur bi di ko woolu moom xamul woon ne ku tudd Yusuf mi ngi fii ci kaso bi wala mi ngi ci dëkk bi ba dugg kaso moom xam ko woon wala même bu ko xamee ku tudd Yusuf a ngi woon ci dëkk bi xamul ne tëj nañ ko kaso diir yi mu fa nekk xamu ko parce que ki ko fa tëjoon mooy premier ministre bi te premier ministre dee na président bi léegi moo fi nekk am na keneen ku toog poste premier ministre léegi président moo fi nekk te président bi moom moo gént gént gi ba lii yëpp xew léegi nag Yusuf mu ne foog ñu leeral lan laa defoon ba dugg fi ah waa ji daal dellu ne ko ki ñu tëj ci kaso bi kat lànk na nee na du génn moom ñëwul. demal nga dellu dafa ne waa ji ñëwoon jël si ko demal nga dellu ci sa boroom sa patron soo demee nga laaj ko jigéen ñooñu den dagg seen loxo yi taxoon ñu tëj ma kaso. lan mooy seen mbir ba mbir mi leer falamma jaahu rasulu qaala irji ila rabbika fasalhu ma baalu niswati allati laati qata'na aydiyahunna inna rabbi bi kaydihinna alim dellul ci sa patron boo demee nga laaj ko lan mooy mbiru jigéen ñi nga xam ne dañoo daggoon seeni loxo ak paaka ya lan mooy seen mbir lan moo taxoon ñu dagg seen loxo kan moo leen ko daggloo woon ak man ban relation laa ci am bañ jàpp ma tëj ma ndax kat seeni pexe sunu borom subhanahu wa taala xam na ko ah di kooku ñëwee wax loolu président bi daal di joxe ndigal enquêteurs yi daal di ñëw ñu dajale jigéen ñi ñoom ñëpp waaw parce que mbir mi noonu lay demee il faut mu leer loolu nit ñi naan dafa yomb tëj tijji rek yomb na trop foog ñu leeral lan moo taxoon ñu tëj la gis ngeen ñaari mbir foog ñu jàng ko fii nuróowul Yusuf démb bi waa ji di génn da ko ne boo demee fàttaliku ma ci sa boroom tey lan la wax waa ji demal nga laaj sa boroom lan laa defoon ba ñu tëj ma ñaari taxawaay yi du benn lu tax bële amagul woon formation tey nekk na ci kaso bi ba formation bi mat sëkk ba mission bi mat moo tax tey lan la day xaar ndigalu sunu borom subhanahu wa taala tey du yàkkamti xoolal bee dafa yàkkamti woon waa ji di génn rek mu ne ko boo demee nga wax sa patron am na benn waay bu tudd Yusuf bu nekk ci kaso bi ndax amaana mu fàttaliku ma mu génne ma waaye gis nga yàlla subhanahu wa taala alfarq bayna almawqifayni kabir wa bada almalik yabxas an ilxaqiqa bi nafsihi buur bi moo jógal boppam enquêteurs yi sax li mu leen di yabal yabal yépp buur bi moo jógal boppam ci mbir mi woo jigéen ñi di leen enquête fa hada amrun lam yaalamuhu min qablu buur bi xamu ko woon démb xamul woon mbir mi yëgu ko sax gis nga état am na yu ciy xew yoo xam ne président bi du ko yëg moo tax gis nga am na président yu fi jaar lan moo leen daaneel mooy yëguma ko woon nangam am na fi dégg naa am na ci koo xam ne bi ñu ko nee café léegi dañ koy jaay mbuus juróomi dërëm ak meew juróomi dërëm ñu tegal ko ko nii mu ne non mais man lii mosuma ko yëg dégg naa dafa toog di jooy fekk c'est trop tard fekk ñi lay mer mere nañ la ba gàddu seeni yat te nguur mooy loo xam ne nit ñi du ñu may président mu toog naan xaw ma ko woon xaw ma ko woon nit ñi duñ la ko baal parce que nit ñi fale wuñ la nga toog fi naan xaw ma ko lépp yow da nga koo war a xam mi ngi mel ne sa kër rek kenn du la baal nga naan sama kër xaw ma woon lii. loolu moo tax responsabilité dafa rëy buur bi ndeysaan xamul woon ne dañoo tëj Yusuf mu daal dajale jigéen ñi lan la leen wax. qaala maa xatbukunna israawattunna yusuf an nafsihi lan mooy seen mbir ba ngeen sàkkoo yusuf yéen ci seen bopp buur bi tàmbali na di laajal boppam mu laaj histoire bi nu mu demee li yakuna ala bayinatin min al amr ngir mu am lu ko leer balaa dara di xew moom na am lu ko leer ah bi loolu amee fa atarafati nisa bil haqiqa jigéen ñi daal di reconnaître dëgg gi dëgg gi nga xam ne moo am qulna haasha lillahi ma alimna alayhi min suu ñu ne sell ñeel na yàlla ñun de waa ji xame xamewuñ ko lu bon ki ci gënoon rey nag rëy te mooy imraatul aziz jabaru premier ministre moom moo njëkk reconnaître li gën a rëy ndax moom moo defoon pexe yépp wa huna qaamat imraatul aziz fi lahza fi lahzati sidqin li taqula kalimatul haq li awali marra fi xayatiha nee na fii la jabaru premier ministre bi taxawee nag première fois mu wax dëgg mu génne ci dënnam ci làmmiñam ay baat yoo xam ne baatu dëgg la première fois pour yusuf mën a set qaalat imraatul aziz al aana xas-xas al xaq léegi nag dëgg jot na zahara wan kashafa al xaq wa baana baad al xifaafihi mu ne dëgg leer na dëgg nag gën a war naa jib ñu génn ko ci sunu dënn yi ñu leeral mu ne ana rawattuhu an nafsi man de maa ko bëggaloon sama bopp maa ko doon maa ko doon sàkku waaye wa innahu la min as-sadiqin moom da wax dëgg yàlla ci ñu dëgguñu la bokk wa innahu la min as-sadiqin moom da ci ñu dëgguñu la bokk man mi maa ko doon ut di ko sàkku maa ko doon defal ay pexe lalal ko ay ndëgg sërëx pour jot ko moo tax yal na yàlla musal waaleykum salaam wa rahmatullah yonent bi saa salaam nee na ittaqu dunya wattaqu nisa ragal leen yàlla waaye ragal leen pexe jigéen fa inna awalu fitnatin kaanat fi bani israil lan kaanat ala nisa première musiba bi daloon bani israil lan la mu ne ci jigéen lan moo génne sunu maam aljanna sunu maam aadama aljanna lan moo génne sunu maam aadama aljanna jigéen gis ngeen néew na ci àdduna ku jigéen di lalal pax te jàpp la këppatalu la jàpp la moo tax gis nga loo gis ci àdduna bi mooy jigéen ñi lu ñu bëgg a def def ko jigéen ñi tëj nañ ay société jigéen ñi tas nañ ay kër jigéen ñi indi nañ guerre ci àdduna bi am na ay yonent yoo xam ne sax wala ay nit diine yu mag yoo xam ne sax jigéen a tax ñu rey leen bu leen fàtte sax ay malaayika yu ay jigéen gasal ay pax këpptal leen jàpp leen haarut wa maarut ci yenn histoire yi nuñ ko nettalee bu dee wér na malaayika laa wax de waxu malaak nag doomu aadama kon jigéen dëgg dëgg dëgg war nañ jàngaat seeni mbir di moytu bu baax a baax a baax a baax ah gis nga kii mu nee na Laurent Gbagbo ak ñeneen ay président ci àdduna bi ay nit ay borom xam-xam ay nit yàlla ay nit yoo xam ne ay yonent seeni jabar ay borom xam-xam ay waliyu ay ay ay ñoo xam ne seeni jabar ñoo leen gasal ay pax ñu daal di këpp daal di daanu kon gis ngeen Yusuf waaye Yusuf lan moo tax mu mucc mooy sécurité yàlla ku yàlla aar rek nga nga mucc yal nañu yàlla aar li ndaw si di def lépp te xoolal ndaw si du ku ndaw jabaru premier ministre ah mbindaan mi ci kër gi sax bu la gasalee kàmb yenn saa yi mu jàppale waxuma laa nag jabaru premier ministre ci rafetaay bi ci lekk gi ci taaru bi ci waruwaay yi ci xaalis bu mu lay jox teg la yenn condition yu rafet yu neex ba pare indi la ci boppam est-ce que mun nga am mucc neexut de wóorut de moo tax yàlla na yàlla musal na leen yàlla aar kii def nañ lu nekk pour jàpp ko waaye yàlla moo def mu rëcc moo tax tey ndaw si taxaw ci kanamu peuple bi daan ne dëgg jib na man mii maa ko doon sàkku waaye fekk naa wa innahu la min alsaadiqin mu ne ana allati agraytuhu wa daawatuhu ila nafsi man mii maa ko doon ut maa ko woo ci sama bopp waaye wa huwa bari min alxiyaana kii ku set wicc ci wor la wa saadiq fi qawlihi ku dëggu la ci waxam hiya allati raawadatni an nafsi mu ne moom mi moo ma ut moo ma doon xëcc ci boppam wa haza ijtirahun sarih bi baraati yusuf nee na lii reconnaître la boo xam ne jigéen ñi reconnaître nañ ko ne yusuf dafa set wecc ay loxoom taqul loolu gars yi di wax Sénégal boo waxee ñu ne man samay loxo taqul ñan la seen loxo taq xanaa du ci ñi ñu lekkul ñi ci duggul kay xanaa ñoom ñi ci dugg kay nag seen loxo moom munul set ñi ci dugg dañuy wax rek waaye seen loxo mënut a set zalika li yaalama anni lam axunhu bil xaybi lan moo tax Youssouf ñu proposé ko kaay génn kaso bu doon kenn ci ñun la tey nga nekk ci kaso 15 ans 20 ans bis ñëw rek ñu ne ubbi nañ porte yi ñëwal génn looy def da ngay daw zibilé génn yàkkamti dem sa kër bu dee Sénégal sax doo dem sa kër da ngay jubal direct géej man Sénégal laa gis ku ñu tëj kaso bu géej rek jëm waa géej gi lu mu ci mën ah ñu ne da ngay dem sangu ji xaw ma mais est-ce que géej setal na la bu fekkee da ngaa rayoon ay di ñu tëj la kaso bu fekkee da ngaa sàcc ay milliards ñu tëj la kaso nga génn dem sangu ji géej san nga loolu ci nit ñi rek nga nga génn waaye ci yàlla yàlla mu lay xaar kon lii ñuy wax du benn set dem sangu ji géej taxul nit set de nit set mooy li nga def li nga lañ la tuumaal fekk defoo ko ci yàlla waxuma ci nit ñi nag boo layee jëlee ay avocat ñu layi la ba nga génn ci kanamu nit ñi waaye yàlla ëllëg avocat yooyu yan ñooy sol robu taxaw ci kanamu yàlla ne de de ne yow ba nga ñoom ñoom ba nga ba ngay lekk gis yëguñu ko moo tax risque métier avocat métier bu dangereux la loo xamul yëgoo tinoo fekkiwoo nga ñëw di ko laayil naan du dëgg moo tax yonent bi saa salaam ne àttekat yi ñett lañ ñaar ñi safara lañ jëm kenn ki mu ngi ci danger lan moo tax Yusuf ñu ne ko kaay mu lànk pour mbiri leer maanaam mbiru kaso du dugal rek génne loolu dafa yomb nit ki suñ ko dugalee war nañ wax nit ñi lan moo tax ñu dugal ko suñ ko génnee war nañ wax nit ñi lu tax mu génn moo tax Yusuf bi ñu ko ne génnal mu lànk pour Yusuf nee na lan moo tax ma def loolu mooy pour ñu xam ne premier ministre bi xam ne man waruma ko trahiruma ko ci soxnaam maanaam duma koo xam ne daf maa defal mbaax ma fay ko lu bon fam ma fekk fam ma jële ma nekk jaam mu indil ma ci biir kër gi def ma doomam jabaram di ma sàkku dina ñaaw ci man ma dem di nekk ak jabaram di ko war loolu duma ko def mana mu ne zalika li yaalama anni lam axunhu bil xaybi zalika li yaalama zawji azizu misra anni lam axunhu wa innama hiya kanat mujarradu muradat lam yaqa maaha fahisha wa anna allah la yahdi kayda alxainin ndaw si nee na pour sama jëkkër xam ne loolu ay caprice la woon rek waaye wóorul waaye yàlla day moom moo dul jubal pexe workat gis nga inna allah wa anna allah la yahdi kayda alxainin yàlla du juxal yàlla du jubal pexe workat saa yoo jógee pour wor nit xamal ne yàlla subhanahu wa taala say pexe bëri rek waaye yàlla du ko sottil te loolu ndeysaan loolu Sénégal moom fi ñu toll nii lu bëri feeñ na ci yàlla du jubal pexe workat mën ngaa wor nit année bi waaye guddal fan yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg day feeñ rek te ñëpp dinañ xam ne yow workat nga moo tax wor baaxu olof yi nee nañ boo waree ren ba débil feeñul ci yow dañ la kaa jiiñ du dëgg te loolu waxu dëgg la wallahi yàlla moo ko wax mi ngi ni wa anna allaha la yahdi kayda alxainin warkat yàlla du baaxal mbiram mukk mukk mukk mukk wa ka annaha taqulu mahma xaawalna fitnata yusuf alayhi salaam falan nastati nee na mu ngi mel na ndaw si mi ngi naan lu ñu jéem a jéem a jéem a jéem fitnaal yusuf luñ ko jéem a wor mënuñ ci moom dara wa mahwalna wa mahma hawalna isa u luñ ko lor kaso ba maanaam yemuñu rek ci tëj ko kaso xam ngeen kaso dafa métti xam ngeen kaso dafa métti waaye kaso li ci métti mooy ñu boole ci ay yar boole ci xiif loolu day gën a métti kaso rek métti la mbugal la mais buñ ci boolee di la mbugal aussi di la dóor te noonu la ndaw si daan def danaan jékki-jékki yónnee pour Yuusuf mën a nangu li mu wax su lànkee mu neexal kii garde kaso bi ne ko dóoral ma ko waa ji dóor ko dóor yu métti léeg-léeg mu ne waa ji bu mu lekk waa ji xiifal ko waaye loolu yëpp Yuusuf xam ne ci mission la nekk moo tax ndaw si tey mu taxaw di reconnaître nee na lu nekk def naa ko waaye mu ne këng daal di dëgër lan nastati li anna yusuf sa yazallu taahiran ndax yusuf dana sax di set naqiyan azizan yaxtaaju ilayhi nnaas wala wa huwa la yaxtaaju illa allah subhanahu wa taala yusuf moom dina dañ di nekk koo xam ne ku set wicc ku set wecc ku tedd ku ragal yàlla nit ñi soxla ko waaye moom du soxla ku dul yàlla subhanahu wa taala summa ndaw si lan la tëjee waxam mu ne wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-suu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurun rahim mu ne man de mënu maa satal sama bakkan ndax bakkan bi ko yàlla bindee daf kaa bind mu ànd ak loolu ñu naan xarisa mooy loo xam ne day tax mu gaaw a bon bakkan ñaari mbir la àndal jàngeen ci suratu sams yàlla mu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nit koo gis ñaari mbir ñoo ko ëmb ñaari mbir moo ëmb sa bakkan boo ci góorgóorlu rek mu noot borom bi dafa am côté bu baax am côté bu bon soo toppee bu baax bi nga texe ñooñu la yàlla di wax qad aflaha man zakkaha ñi texe mooy ñi setal bakkan bi bomb ko ba mu set wicc ba bakkan bi baax ñeneen ñi ñooy wax qad xaaba man dassaha bakkan bi ñuy wax ci alquran ñett la nafsul ammaara bisu ak nafsul lawaama ak nafsun mutmainna ñett yi la ko borom xam-xam yi di wax am na yu ci yokk sax raadiya mardiya mais benn bee rek mooy ñett yi am na bakkan boo xam ne la ammaaratun bisu lu bon rek lay def dootul def lu baax su nit tollee foofu yàqu na su nit tollee foofu yow lu baax intéressé su la ñu baax ñi intéressé tuñ la fu baax intéressé tu la déglu lu baax wala wax ko wala jëf ko intéressé tu la lu bon rek yow léegi yow yaay ammaara bi suu ñooñu la yàlla dox ci quran ne xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gisaawa moo tax ba muy jël aaya bi lu mu wax fii qulubihim marat ñoo feebar jeex na yàlla ñooñu yàqu nañ beneen bakkan bi mooy nafsul lawaama mooy bakkan buy yedd boppam soo bëggee def lu bon fala uqsimu bin nafsil lawaama boo bëggee def lu bon mu ne la ah yow tamit yow tamit lii xam nga ne lii yow waroo ko def wala nga def ko ba pare sax sax sa conscience dootul tranquille maanaam journée bi yëpp doo dal da ngay xam ne def nga lu bon wala jamono bi nga koy def da ngay doo tranquille da ngay tiit loolu mooy nafsul lawaama boobu baax na parce que da lay yedd soo ko defee dina la jaral woor ay fan julli ay guddi saraxee di yéem a def lu baax yéem a dabaatal puisque lu bon li nga def ñetteel bi mooy nafsul mutmainna mooy bakkan boo xam ni moom pare na ci lu bon du ko jéem du ko xalaat bakkan boobu la yàlla gërëm moo tax mu ne nafsul mutmainna ñooñu lu baax rek mooy seen àdduna mooy seen àllaaxira lépp lu ñu def seen àdduna wax ak jëf fu ñuy dugg ak fu ñuy génn lépp lu baax la moo tax yàlla mu ne bakkan boobu muy bakkan bu dal ba pare raadiya muy bu ñu gërëm mardiya mooy bu ñu kontaan boobu nag mooy bakkan bi nekk comboxtal mooy bu baax boo xam ne du xalaat sax lu bon weesu na ko foofu kon ban moo nekk ci digg bi te ñun ñu toll ci mooy lawaama ñu war a góorgóoru nag dem mutmainna raadiya mardiya ay étape da ngay jógee ammaara dem lawaama dem dem ba ba ngay yegg ñooñu la yàlla naan ci suratul fajri fin bi irjii yaa ayatuha nafsul mutmainna irji ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati boo deewee dugg yowm alqiyamati kon yal nañu yàlla boole ci bu mujj boobu gis ngeen ndaw si lu mu wax man de mënumaa setal sama bakkan mënuma ko ndax bakkan dañ koo lënkaleeg lu bon dañ ko booleeg lu bon koo gis sa sa nafs ñaar rek la am na bu positif am na bu négatif léegi nag nan ngay def mooy yow yaay góorgóorlu yaay góorgóorlu bu fekkee da ngaa bëgg baax acca bismillah yoon baa ngi nii wahadaynaahu najdayni wan nañ la ñaari yoon yaay góorgóorlu su fekkee yoon bu baax nga bëgg a jaar acca bu fekkee yoon bu bon ba aussi yàlla bàyyi na la ndax wan na la ñaari yoon yaay góorgóorlu ban nga ciy jaar sunu borom nag nee na wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum sublana ñi góorgóorlu bëgg a baax jëm jaama jaar sama yoon dinaa leen jàppale soo sàgganee nag nga daal dem jaar ci yoon bon bi yàlla moom yor na maandu teem gu mat sëkk toog di la seetaan parce que yow yaa tànn am nga xel xam nga lu bon xam lu baax misaal bi ma ci yàgg di joxe mooy boo ne asalaamaaleykum ci kër ñu ne la exil toogal yaa ngi dugg ci saal bi ñu ne toogal fourneau baa ngi boy wala gaz bi ñu ngi teg fauteuil baa ngi nii mais dañ leen toogal rek toogal toogal toogal fooy toog lu tax ah lu tax toogal ci gaz bi ba danañ ne toogal rek kenn waxul fauteuil kenn waxul gaz dañ ne toogal exi exi toogal toogal foo toog fauteuil bi lu tax lu tax toogal ci gaz bi te waxoo lu tax waxoo waa ji tegil baraade bi ma toog ci gaz bi parce que sa xel ngay utiliser fan la ñuy toog fan lañ lan lañ fi teg pour toog lan lañ fi préparé pour toog bi nga ñëwee rek nga daal di toog noonu loolu loolu la doomu aadama xelam li tax yàlla may ko xel mooy pour mu koy jëfandikoo moo tax gis nga ñi dugg safara seen première reconnaître bu ñuy reconnaître lu tax ñu dugg safara mooy dañ naan ñun bu ñu doon xalaat duñ dugg safara law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabi sair ñun bu ñu doon dégg di xalaat tey duñ dugg safara kon ndeke ñu lay wax doo dégg sa xel mi doo ci xalaat wallahi safara ngay mujjee ci te loolu nekkul rek sax ba safara même fii ci àdduna li ngay gis ci ay mbir yoo war a jàng yoo war a comprendre yoo war a bàyyi xel jàng ci damay faral di wax xale yi su sa benn moroom bu ko lenn dalee ci benn yoon walla benn place est-ce que yow war na laa dal war laa dal ñaari gumba dañu ànd gumba yi dañ daan tooñ rek dañu ñëw fekk benn tubaab root piscine am ba fees rek sangu ba pare daal di bàyyi rek ñoom bu ñu ñëwee rek daal di dugg bu ñu bàyyee tubaab bi dem rek ñu ñu ñëw bu ñëwee dañuy tëb rek ne pëncang ci biir ndox mi xam nga ndox lu lu diis bu ci bu ci daanoo da ngay dégg da ngay dégg biir wi léegi nag benn bis tubaab bi. wax ba sonn ñu ñu bañ a bàyyi benn bis tubaab bi daal di sangu ba pare rek daal di génne ndox mi bàyyi noonu piscine bi mu ne kenn wow ñoom xamuñu ne tubaab bi génne na ndox mi ngacc na ko ñu ñëw rek kenn ki tëb daal ne ci biir rëng yow daal di daal ci karo yëpp yi ne ci top mu ne keneen ki ñëwal kooku ne ko dégguma pusu cung cung de mu ne ñëwal kooku ne ko non dégguma pusu cung cung maanaam son bi waa ji daanoo ak biñ doon daanoo démb du benn gis nga lan moo tax gumba gi xalaat loolu dafa taxaw utiliser xelam mooy ni moromam bi daanoo du bii lañ doon daanoo mu ne ko ah waaw kooku ne ko ñëwaat rek mu ne ko déedéet dégguma puccu cung cung mu daal ni ñëw nii nii dugg gisul ndox mu ne ko ah mu ne uu waroon ngaa ñëw rek li ma li ma ñam tey mu ne uu maanaam lan moo lan moo tax gumba bi mujj bi yëf yi dalu ko dafa te xel dafa utiliser xelam bàyyi xel ci liñ doon def moo tax tey mu mun a mucc mais xoole ku njëkk ki dafa ñëw rek musiba dal ko kon doomu aadama yàlla mayu la xel rek pour lan ngay lekk naan te xoolal ci suñu wàllu dund lekk naan yeeg leneen leneen dañuy utiliser suñu xel lu tax suñu diine duñu utiliser suñu xel bëri na tey ay nit ñu fi nax wala ay nit yu topp ay caaxaan ay nit yu topp ay nit yoo xam dañu ne nitu diine lañ ñooñu topp leen lan moo tax ñu topp leen ñàkk utiliser seen xel dong waaye xam nañ ne fekkee diine kii amul diine bañ koy topp kon nit amul lay ci kanamu yàlla ëllëg parce que yàlla may na la looy ràññee léegi léegi bi ñu la nee toogal dañ leen a toogal kese waaye yow sa xel mi moo ràññee fan nga war a toog noonu sa xel mi ràññee loolu war ngaa ràññee loolu ci sa wàllu diine kan nga war a topp kan nga war a déglu fan nga war a dem lan nga war a def waaye bu ñu nekkee rek ay ndof taxañ suñu bopp li waa ji di wax taxañ sa bopp rek jox nit ne ko yóbbu ma safara loolu musiba naarullaay la mu ne inna man yata'ammal tilka alkalimat allati xarajat min fami imraati alaziz yashuru bi annaha qad taxawalat min alshirki ila alimani waltawxid mu ne ku déglu ndaw si li mu wax tey ne mënumaa satal sama bakkan ndax bakkan yàllaa ko boole bind koog lu bon lu dul ku yàlla yërëm mu ne ku déglu lii dana ci jële njàng ne ndaw sii même moom ci boppam am na lu ko Yuusuf jàngal ci dars gis nga njàngale li ci gën a gaaw mooy ngay def lu baax ci kanamu nit ñi loolu gën a gaaw ci njàng njàngale li ci gën a gaaw mooy di def lu baax ci kanamu nit xoolal lu bon liñ def Yuusuf tëj kaso dóor xiifal tumarankeloo ko mais terewul ndeysaan mu génn ne man damaa bëgg rek dëgg leer bi dëgg bi leeree ñoom ñoom mu baal leen loolu tax na tey ndaw si daal di am tawxiid jóge ci shirk dem ci imaan bàyyi bokkaale ndaw si xam ne yàlla rek mooy yàlla xoolal fi mu jaar ak waa ji ak ni ko yàlla sàmmee faqad kaana sabaatu yusuf nee na lu yusuf sax alal ifaaf wa taqwa ci fegu protégé wu gëm yàlla démb ci waxtu wi maa ngi leen di jégalu lu tax ñëwuma woon dars dama yóbboon xale yi aan waa waa jardin bi ma ñëwee ay gée moo tax mais balaa ma doon dem ñëwoon naa fi tàggu ne leen du ma mën a ñëw def si dars après bi ma ñëwee ba sangu ju liggéey toog tuuti connecté am benn jigéen bu ma doon waxtaanal ndeysaan ci wàllu islam mi ngi France mu nettali ma benn histoire boo xam ne dama yéemu ci yàlla mu ne benn waay boo xam ne day dund diine fu mu dem France ut liggéey rek dafa mën a jàng nag day apt maanaam concours bu mu def ñuy jël liggéey moom mooy apt pay mais bu ñëwee ba war a xëy rek wala gars yi recevoir ko war ko bindal kiyam pour mu war a xëy ñu ne ko mais sa sikkim bi ak sa xamis bi nga sol vraiment foo nga dindi ko de suba booy xëy si bul ko indi moom tam mu lànk ne leen ah sama sikkim bi ak sama xamis bi de wax dëgg yàlla moom laa mën a liggéeyee gars yi ne ko kon bul xëy waa ji nekk ci loolu ay at fu mu dem ñu jël ko mais buñ ko ne lii mu ne leen non moom duma na pas question ba benn bis mu daal di sonn nag xam nga yàlla yàlla ku bëri yàlla ku mën a nattuwaate la comme ni mu nattoo léegi Youssouf xoolal fi mu jaar ak moom maanaam yàlla mooy koo xam ne bala mu lay jox diplôme daf lay examiner ba pare daf lay tester amul benn yonent bu yàlla teg ci kaw lu dul yàlla nattu na la moo tax alquran ne alif lam mim a hasiba nnas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun da ngeen yaakaar ne da ngeen di wax gëm ngeen yàlla rek yàlla bàyyi leen foog yàlla nattu leen waa ji nattu yi metti mu jekki-jekki rek dem ci benn société buñ ko buñ ko ne woon mun ngaa ñëw xëy si waaye charte boo dindee sa sikkim simmi sa xamis bi mu dem wat sikkim ba mu set simmeeku sol semisam karawaatu daal di jubal ñëw ñu recevoir ko bi rek après ki ko recevoir daal di koy xool bi ci ak ne ko mais yow musoo fi ñëw mu ne ko si mus naa fi ñëw rek waa ji daal di génne document yi génne photo yi mu déposé woon ne ko mais mus nga fi ñëw waaw mu ne mais bu tax commence bu njëkk bi bi ñu la waxee ñëwal ñëwoon mu ne non xam nga rek boobu ma dama gën a sonn daal boobu da ngeen ma ne woon naa war sama sikkim daal di simmi sama yére bi ñu ne waa léegi nag mu ne waaw léegi nangu naa ko waa ji ne ko non yow mënuñu la jël mënuñu la jël mu ne lu tax ñu ne yow nga war sa borom war sa yonent nga bëgg a ñëw yu- yàq suñu société yow waraate kat nga demal kenn du la jël gis nga yow duñ la jël parce que yow da ngaa trahir sa religion trahir sa sa conscience kon bu ñu la ñëwee fii ñun dam dañuy trahir yow yow mënuñu laa jël demal demal waaye daal di koy jël dossier daal di koy delloo démb la ma ko ndaw si ne xool loolu nu mu grave waa ji lan la yaakaaroon ndeyam léegi perte na yàlla perte na yonent bi perte liggéey bu njëkk bi sax moom amoon na bu njëkk bi amoon na amoon na yàlla pertoon na lépp mais amoon na yàlla mais amaa léegi nii amatul dara loolu nag mbokk yi musiba weesuwu ko kon nit na am principe gis nga Youssouf bi mu saxee ci lii lan la mu jaam mooy dëkk bi yëpp ñëw topp si ko ñëpp benn ci ndaw si nga xam ne moo ko doon sàkku ndax sax bi mu sax ak ragal yàlla bi mu ragal yàlla ak muñ bi mu muñ ala sijin ci biir kaso bi ak lor luñ ko yor loolu yëpp sababan fi hidayatiha tax na tey ndaw si baax te mbaaxaay bi du yem ci ndaw si de yeneen jigéen ñi góor ñi pale bi dëkk bi yëpp fan la Youssouf mujj mooy islamiser Égypte foofu la mujj mbokk yi moo tax mu ne amul benn nit kuy muñ ay nattu ay jafe-jafe nga taxaw kenn lu dul loolu nga muñ dina la mujj a nekk ndimbal pour yow amul kenn amul loolu moo tax doomu aadama na nga yëg ne am na jaar-jaar yoo xam ne da nga fay jaar foog yàlla nattu la boo ci buggee génn nag foog natt yooyu nga muñ ko olof yi dañuy wax ne su robinet tëjee nga mar dem naan potin xam ngeen potin xam nga potin ah waaw xam nga ko potin xama ko xam nga ko yow yow xam nga potin mas ngaa gis kuy fóot ndox mi nu mu mel loolu mooy potin léegi nag bu robinet tëjee nga dem naan loolu ndax yàkkamti bu robinet tëjee nooy def da ngay rus da ngay am gàcce kon robinet bu mu tëj nga dem naan potit di yàkkamti léegi robinet yi ubbi mu ñar rek loolu la doomu aadama di def mu ne sunu borom subhanahu wa taala moo aar Yusuf daal di koy jële ci kaso te gis nga chaque jour war nañu jàng ne ku ñu tooñ buñ la dencee ci kaso yàgg yàgg yàgg fan ngay mujj mooy ci teraanga xam ngeen ban misaal laa leen di jox. tey président assemblée nationale Égypte ci kaso la génnee tey jii fi may wax ak yéen kaso bi lañ ko jëlee ñëw teg ko biir assemblée. pré waa ji waroon nekk président sax instant yii nii nga xam ne ñu ngi ci élection ki waroon nekk président moom armée bi moo ko xeex dañ ko génne kaso moom it ñëw samp ko pour mu war mu war leen a représenté mais gars yi ne ko non non kii peine bi mu waroon tëdd dafa des dafa des nangami at. te dañ koo tooñoon de mais comme lañ ko peine bi dafa des armée bi ne du nekk président ñu jël deux beneen deuxième personne ci ñoom seen biir kooku tey moom mooy dem deuxième tour pour nekk président tooñaange bu ñu la tooñee tëj la kaso génne la yàgg yàgg yàgg yàgg tooñ bu ñu la tooñee laa wax de bu ñu la tooñee laa wax de buñ la tooñee yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo àndeek yàlla wallahi wallahi wallahi teraanga ngay am mooy yàlla daf lay fay bëri na ci àdduna bi ku ñu jële ci kaso yóbbu la pale wala ku gi Mandela ngoogu te gëmul sax ay islam mais ay réalité la yoo xam ne yàlla moo dul ànd ak tooñkat dëgg dëgg rek la moo xam juif nga moo xam chrétien nga moo xam jullit nga moo xam loo mën a nekk buñ la tooñee suñu borom subhanahu wa taala du na du naax la xam nga xadis ba nu mu wax waxul jullit lan la wax duaa u zalim mustajab yonent bi da ne ku ñu tooñ sa ñaan yàlla daf koy nangu ku ñu tooñ rek la wax ku ñu tooñ nag koo mën a nekk yàlla day ànd ak yow même boo nekkee jullit di tooñ da ngay nax sa bopp rek kon nanu bàyyi xel fii ci bu baax a baax a baax ñu xam ne sunu borom subhanahu wa taala mi ngi ànd ak ñu muñ inna allaha maa sabirin kon li mooy darsu tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu